Bouba Ndour mu mel ni daf doon nelaw waaye nag yow na si dossier vingt-neuf milliards yi nga xam ne ñu ngi koy toppee kii di uh, maam mbay ñaa ki nga xam ne moo di président Ousmane Sonko uh, waxoon si benn wax ka ne moom mi di Mame mbay Niang vingt-neuf milliards daf ko luubal ba taxoon mu porte plainte ko yóbbu ko si yoon moom mi di Bouba Ndour nag si plateau TFM bi nga xam ne mu ngi doon am démb seen émission boobu di jàkkaarloo ma nga doon dëggal ka ne maanaam kii di Ousmane Sonko nag dëgg dëgg dëgg nak nañ ko wax waaye dañ koy complot rek pour maanaam xañ ko li nga xam ne moo di président 2024 moom Bouba Ndour kaddu yéen mel moo ko amal si plateau jàkkarloo bi nga xam ne doon na am démb si émission boobu noonu ki nga xam ne moo di Bouba Sénégal yu baree baree bare jàppoon ne daf doon nelaw waaye nag yeewu na parce que nag wax na li nga xam ne mooy vérité donte nag peur na pour wax ko waaye wax na ko mooy kii di président Ousmane Sonko sénégalais ñoo ko bëggal seen bopp te ku askan wi bëgg maanaam bëgg mu nekk président maanaam lenn si askan wi tamit waruñu ko mën a xañ askanu Sénégal pour xañ ko li nga xam ne moo di président 2024 moom muy di Bouba Ndour tax na patriote yu bëree bëri nag di ko encouragé si dëgg di nga xam ne foofu moom la